mais euh, population yi nekk si seen kër yi li leen di yóbbul information yi ba ñu jot ko ñu nekk seen néeg yi li leen di yóbbul information ba jot ko loolu collaboration entre ministère de la santé dispositif sanitaire bi ak la presse sénégalaise donc loolu laa bëggoon commencer d'abord bu ma waxee loolu ba pare ma ne dama ñëw tey fii ci euh, Touba pour euh, xool déjà li ñu fi teg pour préparer màggal bi si wàllu wér-gu-yaram est-ce que lépp mat na Euh, ñëw naa euh, xool naa def naa le tour euh, wax dëgg yàlla am naa donc xel bu dal que ne danañu dem si màggal bi si environnement au contexte pandémie si ni mu gën a rafet parce que déjà njàngal mu njëkk bi mooy bu ma xalit bi recevoir ku tedd gi bu mu génnee déjà laa ne wax dëgg yàlla joxe na leçon Sénégal parce que na mu génnee ak respect mesure barrière na mu ko defee nekk na lu rafet noo xamante ne bu si ñëpp royee rek incha allah danañu dem si màggal bi dans les meilleures condition mais aussi euh, profité naa si occasion bi pour euh, dem seeti hôpital bu bees bi xamante ne mois de mars incha allah danañu ko livré mais aussi xool naa ndax euh, personnel bi mat na am na 5000 agents yoo xamante ne nañ leen euh, donc mobiliser pour que donc ñu jàppale ñu si màggal bi ba kenn du am problème boo xamante ne am nga ko si wàllu santé action sociale te duñ la mën a taxaw. service d'hygiène itam xam ngeen ne président de la république daf leen jox ay moyen yu bees yu moderne yoo xamante ne mi ngi fi yooyu yëpp déployé nañ ko si màggal bi sans compter maintenant. lépp lu ñu si def si wàllu garab si wàllu ambulance si wàllu beneen xeetu jumtukaay yoo xamante ne dañ koy laaj pour que yi nekk dans les meilleures conditions